asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur CTGHT iPhone dafa génne iPhone bu bees non iPhone dafa génnee ay iPhone yu bees benn bi mi ngi tudd iPhone 11 beneen mi ngi tudd iPhone 11 Pro beneen mi ngi tudd iPhone 11 Pro Max lu tax iPhone génnee ñetti iPhone pour comprendre loolu il faut que ñu dellu ci septembre 2018 iPhone dafa génne woon ñett iPhone benn mi ngi tudd iPhone XR beneen mu ngi tudd iPhone XS beneen mi ngi tudd iPhone XS Max ñett iPhone yooyu yëpp bu nekk da ko wutal benn portable bi ko doon iPhone XR portable bi ko donn mooy iPhone 11 iPhone XS portable bi ko doon mooy iPhone 11 Pro iPhone XS Max portable bi ko donn moom mooy iPhone 11 Pro Max lu tax iPhone yokk Pro ci bi. loolu daañ ñëw si kanam léegi ñu commencé ak iPhone 11. iPhone 11 ak iPhone XR ñoo yam presque lépp ñoo yam même qualité écran écran LCD ñoo yam même taille d'écran écran 6 virgule 1 pouce ñoo yam même matière bu ñu leen defaree mais itam ñoo yam même nombre de couleurs iPhone 11 am na couleur bu violet am na couleur bu jaune bleu noir blanc ak rouge léegi di ngeen ma laaj lan mooy seen différence iPhone 11 moom moo ëpp batterie donc iPhone 11 moo ëpp autonomie une heure de temps iPhone 11 moo gën a gaaw ak puce A13 bionique bu mu àndal mais loolu dinaa si wax si kanam mais différence bu mag bi moom moo nekk ci caméra bi parce que iPhone XR benn caméra la amoon mais iPhone 11 dafa am ñaari caméra benn grand angle ak benn ultra grand angle mais du loolu kese mooy différence parce que iPhone XR dafa amoon selfie bu 7 mégapixels mais iPhone 11 dafa am benn selfie bu am 12 mégapixels bu lay permettre nga mën di filmer ay vidéo 4K mais loolu dinaa ñëw si kanam léegi yow boo déggee li ma wax dangay yaakaar ni iPhone XR moom moo gën a moins cher que iPhone 11 et pourtant iPhone XR moo gën a cher léegi ñu ñëw si iPhone 11 Pro lu tax ñu koy woowee Pro ñeenti ñoo tax design bi performance bi batterie bi ak caméra bi loolu du sama wax Apple moo wax loolu ñu commencé ak design bi design iPhone 11 Pro ak design iPhone XS yi lu leen wute bëriwul lu dul écran iPhone 11 Pro moo gën a leer tuuti parce que écran Super Retina XDR la wàccaaleel mais ak si ginnaaw lu mu am trois appareils photo au lieu de ñaari appareil photo à part ça lu leen wute bëriwul mais benn différence moo am ren muy couleur yu iPhone génne iPhone dafa génne ay couleur yu mat comme couleur vert mat noir matt blanc ak couleur bu doré pour man lu tax ñu war a woowee portable bi pro mooy performance bi portable bi dafa wàccaaleeg ak benn puce puce à treize bionique puce boobu moo nekk puce bu gën a performance ci marché bi puce boobu moo nekk puce bu gën a gaaw ci marché bi loolu moo tax portable iPhone 11 Pro moo nekk portable bu gën gaaw portable bu gën a puissant et portable bu gën a performant si portable yu nekk si marché bi yëpp ak RAM 6 giga bu mu wàccaaleel portable bi dafay mën di dawal ay jeu ak ay fichier yu 10 portable bi puce à bi nekkul kese pour di tax muy ubbi ay fichier yu ak ay dawal ci ay jeux yu 10 mais itam day tax muy consommer moins de batterie bu ñuy wax ci batterie bi batterie iPhone 11 Pro c'est vraiment pro ma expliqué leen iPhone 11 Pro booy comparé batterie ak iPhone XS iPhone 11 Pro moo ëpp autonomie 4 heures de temps iPhone XS Max booy comparé batterie ak iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max moo ëpp autonomie de 5 heures de temps sax c'est vraiment pro léegi nag ñu ngi door a yegg si si vraie nouveauté vraie affaire bu tax iPhone bi ñu tuwoowee que pro muy caméra bi portable bi dafa wàcceek ak ñett caméra nu leen disposé dafa xaw bizarre comme cuisinière mais Apple du def dara si neen portable bi dafa wàcceeg ak trois caméras bu nekk 12 millions de pixels benn caméra grand angle benn caméra ultra grand angle ak benn caméra téléphoto mais itam dafa wàccaale ak benn selfie bu 12 mégapixels portable bi ka mu doon si ginnaaw comme si kanam mën nga jël ay vidéo 4K avec 60 images par seconde wala ngay jël ay vidéo ralenti avec 120 images par seconde bu ñuy wax ci ralenti portable bi dafa wàccaaleeg ak benn option option bu kuul option boo xamante ni lu bees la si iPhone 11 yi que mu doon iPhone 11 simple wala iPhone 11 Pro benn nouveauté bu ñuy woowee slow fees benn selfie ralenti bu lay permettre ngay jël ay vidéo yu mel mais portable bi amul ralenti kese portable am na yeneen option lu si mel ni comme ay time lapse ak yeneen yeneen option et itam ak iPhone 11 Pro dafa am yeneen fonctionnalité yu bees surtout si mode portrait portrait yi dafa gën a rafet et puis tam portrait yi dafa gën leer mën nga jël portrait avec sa téléphoto sa grand angle wala sa ultra grand angle mais ak iPhone 11 bi dafa àndalaale itam benn nouveauté nouveauté bu ñuy wax mode nuit moo xam ni dalay permettre ngay jël ci ay photo yu leer nañ même bu fekkee luminosité bi dafa faible wala sax amul benn luminosité portable bi dafa dëgër portable bi dafa résistant portable bi dañ ko certifié IP68 bi yemul XS iPhone XS dafa daan dugg si ndox si lu tolloog 2 mètres mais bii day dugg si ndox si lu tolloog 4 mètres pendant 30 minutes mais portable du résister ndox kese mais day résister à lépp luy liquide maanaam mu doon kafe mu doon thé wala mu doon soda mais Apple nee na portable bi moo gën a dëgër ci portable iPhone yëpp parce que verre buñ ko def moo gën a dëgër ci verre yu nekk ci portable iPhone yëpp mais leen laa leen di conseil boo jëndee sa iPhone 11 wutal ko protège bu dëgër day toj léegi dama bëggoon ñu def benn résumé ci iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro moom moo nekk portable bu gën a rafet écran ci portable iPhone yëpp iPhone 11 Pro moo nekk portable bu gën a baax batterie ci iPhone yëpp iPhone 11 moo nekk portable bi nga xamante ni moo dàqale vidéo ci portable yu nekk ci marché bi iPhone 11 Pro moo nekk portable boo xamante ni moo gën a performant moo gën a rapide et moo gën a puissant si portable yu nekk si marché bi yépp mais leen laa bëggoon xam est-ce que jar na nga jóge si iPhone XS dem si iPhone 11 Pro et itam est-ce que sax war nañu woowee portable bi Pro parce que pour man portable dafa am yoo xamante ni daka manqué lu tax ñu war ko woowee Pro lu si mel ni portable bi amul place carte mémoire même bu fekkee ni am na version bu 512 giga portable amul rechargement inversé et surtout ak AirPods 2 yi génn yi nga xamante ni day supporter charge sans fil portable bi amul stylet mais portable bu amee leen loo tax ñu war ko woowee pro muy caméra bi portable bi mun nga filmer avec trois caméras yépp en même temps grand angle ultra grand angle ak téléphone léegi yow wax ma loo xalaat si iPhone 11 bi fileeg boobu ma lay nga abonné wu pour bañ a rater vidéo yii di waaj a ñëw ma lay jox dig daje ci beneen vidéo incha allah Peace.